هل أتى على أعوذ بالله سميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونشكره ونشكر المعتقدين فيك أنك لا ترتاح إلا الشكر ارتياح ذوي الحاجات لكن النفوس المؤيد تأبى إلى الشكر لمنعها تعاليت أنت يا رب القريب الظاهر الأول الآخر لا تستفزك صدوة العبيد أنت أقرب أنت أقرب إلينا من حبل الوريد ونسألك يا الله صلاة زكية مباركة على نبي الرحمة ومنقذ هذه الأمة محمد بن عبد الله الدال عليك والهادي إليك وبعد أيها المشاهدون الكرام لتلفزيون خضرب تي في نسلمكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw ba ñu sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala ñu koy sant ci ay xéewalam yi nga xam ni ni moom la xéewale ay jaamam di ko sant moom yàlla sunu borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne ni moo ñu defal ndimbal defal ñu tawféex bàyyi ñu fi ba ñu fekke weer wi ñu ngi koy sant ci xéewalam yooyu nga xam ne nii moom la ñuy xéewale di ko santit ñaan ko moomit it moom yàlla sunu borom subhaanahu wa taala yàlla na yàlla yàlla nañu defal xéewal ci barke weer wi yàlla sa borom ba defal ñu njàppanal ba ñu jeexalee weer wi macha allah comme niñ ko tàmbalee yàlla na sa borom ba defal ñu ko waaye lépp lu ci xéewal it yàlla yàlla defal ñu ko ñu ngi amaat mbégte ak contentement bu baax di teewaat fii ci seen euh, télévision Xadara bi TV euh, ci seen euh, jotaayu ngëneelu weeru koor macha allah ngeen ànd ceeg seen mbokk taalibe Mawalay Ndir di nuy ñëpp di ziar ñëpp waaye di nuy ziar sunu xalifa bu baax Seydina Mawlana Cherif Abdullah di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu tànn dëgg wér ak kilifa diine yëpp di ñaanal sunu xarit sunu responsable moral Cherif Mbaye yal na yàlla dooleel ko yal yàlla defal ko tawféex ci barke weeru màgg wi ñaan yàlla euh, macha allah euh, yal na yàlla musal ñu ci feebar macha allah rawatina feebar bi nga xam ne moo lëmbee jamono yàlla sama borom ba defal ñu ci tawféex euh, nag. muy sunu macha allah ñaareelu bind bi nga xam ne tey moom lañ leen euh, liñ leen nar a indil tey ci suñu ñaareelu bindu afwan euh, macha allah ci jotaay bi nga xam ne nii mooy jotaay bii di ngëneelu weeru koor weeru koor nag ku nekk xam na ni wasila la moo tax mu ni asiyaamu afdalu wasilatin fi tarbiyatil mar'i nafsiyan weeru koor moyen la boo xam ne nii jaam bi daf koy am daf koy jël ngir mën a Euh, laabal li nga xam ne nii mooy nafsam mooy bakkanam waaye laabal li nga xam ne nii mooy ay cëram ci lépp loo xamante ni nii macha allah ci bàkkaar la kon loolu ngëneel la goo xam ni weeru kor wi am na ko muy afdal wasilatin fi tarbiyatil mar'i nafsiyan waaye nag wa tajribatan sarwatan fi tadhiril xarbi fi tadhiril qalbi wa taazili iradati wa kabxu xamail araisil xayawaniya weeru yi di weeru koor bokk na ci ay ngëneelam moy yàlla daf ñuy dimbal ci walu xéewal ci walu kom kom waye nak yàlla dinañu dimbali ci tazhirul khalb moy lay laba suñu xol mo wer wi di weru koor bokkut ci ngeeneeli moy wer wi day laabal li nga xamni moy xolu jambi waye nak day defaral jambi li nga xamni moy irada jambi sunu borom subhanahu wa taala day am llahi subhanahu wa taala yàlla yàlla defal ñuko waye nak ñu ni kapxo la frein la bo xamni ni day dimbali jambi freiné ko ci garaisul xaywaan yi nga xam ne nii moom la yàlla moo ñëwee doomu aadama parce que dañuy doomu aadama ñaar ñoo ko composé muy dafa am garaisul xaywaaniya am kii malaikiya dafa am composer boo xam ne nii mooy yëg-yëg sentiment yi nga xam ni nii doomu aadama daf koy am muy lépp lu aju ci wàllu shahwiyaat mooy gaaw a mer yooyu yëpp day dem ci wàllu xayawaanaat waaye nag lépp lu aju ci wàllu yàlla rek xaraa isul malaayika la parce que malaayika yi duñu mooy yàlla kon doomu aadama yàlla daf ko composé ci ñaar yooyu muy xaraa is yi nga xam ni bàyyi may dañu koy am muy yëg-yëg yi bàyyi may di am sentiment yi ñu koor nag sentiment yooyu nga xam ne nii sentiment yi bàyyi may di am parce que bàyyi bu bëggee def lu ñaaw amul xalaat amul xel parce que yàlla mayu ko xel day ñëw rek def ko parce que loolu lañu ñu loolu moo ñu wuutelee ak ñoom kon nag bis bu jaamu doomu aadama bi def lu bon rek dafay toll ci xaraisul xayawaaniya kon nag koor day ñëw ngir génne la ci xarais yooyu muy sentiment yooyu nga xam ne danga koy am vers ñaawteef yi nga xam ne doomu aadama mu ngi koy def kon loolu ngëneel la ci weer wi nga xam ni nii moom mooy weeru koor imaam ali nag radiallahu anhu dafa wax ni law araada allahu an yuaddiba ummatu muhammad salallahu alayhi wa sallam ma aataahum ramadan وقل هو الله واحد امام علي رضي الله عنه دافا واخني يالا سوني بروم سبحانه وتعالى بو فك كونتيني دافا بغ على خيتو يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا دولين جوخ ويرو كور اك قل هو الله احد موي سوره الاخلاص كون يالا بو بغون على خيت وي امام علي نينا دونيو جوخ ويرو كور باسكو نغني لي نيك تي ويري موتاخ موتاخ امام علي امام علي لو اراد الله ان يعذب امه محمد صلى الله عليه وسلم maa aataahum ramadan waxul huwa allahu ahad bu fekkonte ni yàlla dafa bëgg alal xeetu yonent bi salaay salaam di leen jox weeru koor parce que ngëneel yi nekk ci weer wi waaye du ñu jox xul wallaahu axat xul wallaahu axat boo ñëwee ci kër Seydina Limaamu alayhi salaatu sooy naafile ci euh, premier jour yu njëkk yi muy premier quinze jours yu njëkk yi yaa ngi def xul wallaahu axat trente fois xoolal loolu bu weer wi demee nga def khul wala waxat 15 fois diko nafilé muy say nafilé wéru koor kon khul wala waxat ñewna gis nga kon imam ali loolu mu wax dafa bokku ci ngeene li nga xamni wéru weeru ko kon yàlla yàlla fay sayna ali alayhi salatu wassalam waye imam anas ibn malik radiyallahu anhu waxni ni عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن رأى الهلال فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ الفاتح سبع مرات إلا عفى الله تعالى min shakaayati l ayni dalika shahr anas ibnu malik dafa wax ni yéen salaay salaam nee na pour wax la rek ni la weer wi lépp ay ngëneel la ne yéen salaay salaam nee na bépp jullit bu gis weeru weeru koor maanaam nga gis weer wi comme noonu ñuy séentoo weer wi macha allah gis nga ñuy séentoo weer wi ñëpp taxaw di xool weer wi naan mu ngi nee mu ngi nële nee na yow nga ñëw xool nee na yemoo ca nga sant yàlla ci gis gi nga gis weer wi yemoo ci nga jàng faatiha eh, juróom-ñaari yoon imam anas nee na yentu sallallahu alayhi wasallam wax na ni yàlla dina la dimbalil saafaral la say maanaam boo amoon feebari bët yàlla dina la ko saafaral te it yàlla dina la dimbali doo am benn yoon jàngoroy bët ci at mi kon loolu gis nga gis weer wi rek toftal ci sant yàlla waaye jàng faatiha rek yàlla defal la loolu kon yàlla nañu ko yàlla defal macha allah waaye nag suñ borom subhanahu wa dafa wax ci alquran ni chahru ramadanu alladi unzila fihi alquran هدى للناس والبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهرا فليصب صدق الله العظيم يلا دا فا واخني غنيل نيغا خامني ني ويرو كور وي امناكو لان موكو ماي موي القران من جواتي موتاخ مودي شهر رمضان الذي انزل في القران باسكو كون نكتي القران بي يلا واتي تي ويرو كور موتاخ وير وي ام غنيل غيس كون دا فا بوك تي غنيل وير وي moy di Al alquran parce que anniversaire alquran la alquranul karim motax ngay gis ñuy tafsir alquran waye nak di dem di faral lu ñuy def di dem ci jotay yi nga xamni moy jotay yi ñuy alquran moo tax mu ni waaye dafa ñew ngir jubal doomu adama motax muni mu képp ku fekke wéru comme ni ñu ko fekkee yàlla dimbali ko muni fal yasum na nga wor balaay je jeex kon yalla ñu yalla defal tawfiq imam Muhammad sax gay wax ci téré boobu di fadailu ramadan ni summiya ramadan nee na lan moo tax ñu tuddee ramadaan weeru koor lan moo tax ñu tuddee ko weeru koor mu ni li annahu yarbitu dunub ay yaxruquha wa yanquha nee na parce que yàlla def ci effacé bépp bàkkaar bu jaam bi amoon waaye nag yàlla day lakk bépp bakaar boo xam ne di jaam bi defoon na ko moo tax yonent bi ni xufira laka maa taxaddama min zanbika wa maa taaqar bàkkaar boo defoon rek yàlla dina la ko jéggal moo tax abbas ak ibnu shihab wax ni ci teer téer imaam Muhammad Saxiir Gey boo ba tey di ko fekk yéen salaay salaam nee na ida jaa ramadan futixa abwaabul janna wa allaqat abwaabu naar wa sadafat shayatin yéen salaay salaam wax na ni weeru koor wi ñu nekk nee na weeru koor bu ñëwee rek yàlla day wax malaaka yi ñu tijji bunti àjjana yëpp waaye nag tëj bunti safara waaye nag nee na shayatin yëpp seytaane yëpp yàlla di leen di jéng ndax ngëneel gi nga xam ni weer wi am na ko kon yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp macha allah euh, lépp lu ci jub rek ñu sante ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala waaye lépp lu ci dëng rek ñu xam ne ndongal daara bu doon nab nabi la di jégaluwaat bu baax a baax kon tey lii lañ leen indiloon ci seen jotaayu ngëneelu weeru koor macha allah euh, di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp jàmm ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala weer wi lépp lu ci ngëneel rek yàlla yàlla defal ñu ko yàlla na saa borom moo defal ñu tawféex ba macha allah niñ ci duggee yàlla defal ñu ñu koo jeexale noonu lépp li ci ngënee rek yàlla saa borom ba defal ñu ko yàlla jégal ñu suñu bàkkaar ñu ngi jégal lu baax a baax ki nekkoon ci wax waxkaay bi seen mbokku taalibe Mawlaay Ndir macha allah feggoo ceeg ci technique bi Seydi Mouhamadou Lahi macha allah ak euh, ran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 هل أتى على الإنسان حين من الدهر